atum 2024 soobu nañ ci jamono ji tey ci àjjuma ji rek wàllu ko parrainage gi bokk na ci nag loo xamante rek mu ngi fay lëmbee las yéenekaay nag nañu jamono ji top départ ba mu ngi ko fay joxe nag ginnaaw date butoir bi nga xamante ni rek jotoon nañu ko fixé ngir fësal ay plénipotentiaire yu bépp euh, état major politique candidat yi nga xam ne nag ñoom ñoo bëgg a samp seen pëndën gën ngaa néew jamono ji def nañ rek juróom-ñaar fukk ñoom ñëpp daañu nag euh, nekk ñoo xamante ne ni tey ji ca direction générale des élections daañu jot seeni i euh, fiche de collecte ngir wutali parrainage ya Vox Populi yéen kaay ci coow lu mel nag nee na candidat yi ñoom ñu ngay rek euh, tàmbale ji la mu duppee te ji ab examen de passage maanaam nag beneen nag jongante la ci ñoom bu ñu koy xayma rek DGE na ngeen ji daal la fas yéene euh, tàmbali lépp loo xam ne moo jëm ci les coopérations. bokk na ci nag modèle ba ak fiche bi nga xam ne daal dana doon ab kayit waaye tamit daañu ko mën a jëfandikoo ci ab format électronique donte nag coow lu ni mel am na ab parrainage la boo xamante ne ni bëri nay ay tiitaange critique yenn kaay moom ci coow lu ni mel daal la mu ne moom mooy nag rëq-rëq yi daanaka candidat yi lee daañu jànnoog ñoom ngir rek wutale bi lekk ligne de départ ndaxte bu ñu koy xayma gën gaa néew rek téeméer boo jël lu mooy rek benn jàppale nag ni na am ci ay parrainage looy a moo xam fukk ak ñett nag ci ay député la wala bokk téeméer ak ñaar fukk ci ay maire wala bokk ay njiital conseil départemental lu ni mel am ko daal du yomb benn yoon ba tax na daal ku ci nekk war ngaa mën a fabu def sa kéem kàttan na enquête yéeni moom xëta mu njëkkate ji nag mu ngi waxtaane mbiru ko benn bokk yaakaar ak seeni candidature ci xëtu njëkku yéeni yi daal candidat yi nga xam ne daal ñu ngi eh, a ne nag dana wone seeni doole wu ñu sukkandikoo ci suñu yee naataangoo le point ak ci moom ca mu njëkk nee na fa fàng amadu Ba di jàpp nag ni jamono ji moom pat pataral wala bokk ab dal rek la ci daal di duggee Amadou baax ndax nag moom dafay def ndànk wala bokk. tey jii li ñu yaa bëgg a seetlu rek ci moom bokk na ci laaj bi nga xam ne daal yéenekaay bi samp na ko waaye daal li ko leer ba leer moom mooy jamono ji mel ni dafay uh, wattu rek daanaka uh, def coow lu bëri ci kanamu njiitum réew mi Macky Sall Amadou Ba mu ngi waaye daal ndànk rek la ci uh, daal di def le peuple yéenekaay xëy na fàng nag tey ji kii di Aly Ngouille njaay mu mel ni jamono ji daal la ñoom ab alliance moom ak bu Boun dala jon bokk na ci daal lu yéenekaay bi waxtaanee bu ñu koy xayma sax jamono ji ñoom nag nee nañ daañu fasal fësal seen ko candidature ci lu yàggul dara jamono jooje la njiitum réew mi waxoon daanaka janoon nañ ak moom waaye daal ñaar ñi mënees nañu daal ak gaañ ki nga xamante ne ni moom mooy Amadou Ba bu ñu sukkandikoo ci uh, suñuy naataangoo wutali bés bi le jour mi nga xamante ne ni nee na Aly Ngouille Ndiaye nag moom dox na daal te caaxaanu ci fëgg na dënam ma ngay dem ci kaw ñi nga xamante ne daal uh, ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ak seen ak candidat jamono ji daal mu ngi waxtaan ak Mamadou Boun Abdallah Dionne ngir ñu amal ab coalition bokk nga xamante ne ni bés bi xëy na daal di ko ne fàng ci xetam mu njëkk a wutali uh, Tiwaawoon na Sud Quotidien yi ne kaay nañu ñàkkub valeur islamiste radical ak jàmm ci àdduna bi bokk na ci ponk yoo xamante ni daal jot nañ ko waxtaanee ci bile ka Mawlida xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour moom jamono ji bëgg rek ñu daal dellu si waat ci doxalinu ko ay yonante bi bu ñu koy xayma Tiwaawoon daanaka daal joxe na recette ba bu ñu sukkandikoo ci Sud Quotidien ay yéenikaay ci jamono jooju. le quotidien le quotidien naka ñaanal nañ euh, Sénégal yëpp ngir jàmm daal di fi woy jorin bi di euh, Ali euh, kii di Antoine Diome daanaka jàppale ni moom nag fësal na jamono ji daka li nga xamante ni moom mooy dayo ak solo bi nga am ne ñii di njabootu diine yi jot nañu ko am bu ñu koy xayma loolee bokk na ci daal ci la ñu xalamal Maodo bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bu groupe avenir communication lu ni mel am na waaye l'info yéenekaay la mu xamle moom mooy Serigne Moustapha Sy moom daanaka daal taal na fépp ginnaaw kàddu yi nga xam ne daal jot na ko faa yëkkati moom na nag yegg seegul woon waaye jamono ji nag ku nekk waajal boppam te eh, pare ndaxte nag fi ñu toll ni ñoom jot na rek ku nekk daal di jël ay responsabilité am li ñu mënta nangu nag duñ ko nangu benn yoon ca kaw ya nga xam ne nag yëkkati na ko ci kaw Ousmane Sonko la mu xam ne daal moom mooy ñu ngi jéem te seen kéem kattan ngir daal di koy tënk waaye li ñu xamul rek moom mooy moom moomee mënees na ànd ak Ousmane su boobaa ji sax la ca gën a doy waar bokk na ci ñu féete rek ci benn Bokk Yaakaar ñenn ci ñoom dal di ko yónnee ay émissaire ñeneen ñi nag di toog rek di xaar ana moom fan la war a féete ngir rek ñu daal di ànd ak moom loole bokk na ci li mu fësal ndege ni eh, démb laata rek moo ñëwaat ci mbiru koy weeskan mi nga xam ne jotoon lay na xamal daal ne jaru woon nag ñuy wute rek xalif bu Tiwaawoon ndaxte jamono jooje moom fësaloon na taxawaayam ginnaaw ba mu waxee rek ne Amadou Ba futur président sur yéenekaay moom la mu ca xamle naa jamono ji moom mooy nag Serigne Moustapha si ab pistolero la rek jamono ji bu ñu koy xayma ndaxte nag démb mayu leen na lenn la mu wax njiitu réew Macky Sall nag moom mooy donte sax def na ab tànneefam waaye tamit def na lu nekk foofee ca biir si waawoon na mosu fa am ndam rek ci ab élection changement nag maanaam coppite ñu bëgg ko ñu bañ ko ni mel dana am mën na yomb nag comme rek mën naa métti leneen lu métti ah, moom mooy li source ay ni kaay fësal rek bokk ci rek directeur général bu Dakar dem dikk jamono ji daal di yëkkati ab kayitu kalaami bu naaw bu mu seetloo ne am na ci ab bis bu yàqu boo xamante ne daal dañu ko jaay waaye source ane na yéen moom mooy ba mu porté plainte daal xamal nañu ko ne ab frère am ak coup boobee la daal a bokk libération yi ni moom ci mbiru ko Barça wala la mu xëyalte ji bokk rek lu jëm ci euh, juróom fukk ak juróom-ñaari doomi aadama yoo xamante ne ni ci seen wet amat na rek yeneen euh, juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ay migrants yoo xam ne jot nañ leen a wallu foofee ca biir Daxla lu ni mel nag di wéyal rek ni jamono ji daal Barça wala Barsax mu ngi wéy bu baax a baax ak cabaru Lac Rose jàpp leen nag ni euh, soxna si nga xam ne daal moom moo doon wuyoo ci turu Adama Hawa Diallo amoon na ñaar fukki at moom daanaka dafa faatu ginnaaw bi nga xamante ne ni moom ma nga yéegoon ab kuwaat rek di ca doxantu jamono ji nag mi nga xam ne daal mu ngi def appel accident ci moto bi le jàpp leen daal ne xaritam ba mu ca àndaloon moom ma nga ko doon na filme Coupe d'Afrique des Nations wiw sport yi ni kay la ñu ciy àndal ngir ndar képp ko moom nag bokk na ci ponk yamu yëkkatite ji daal Sénégal ma tegoon ab candidature am waaye daanaka dossier am dañu ko teggi seppi ko teg ko fële ndax Sénégal mataluwul lépp Sénégal daanaka convaincrul benn yoon waa autorité CAF CAN 2025 Maroc moom moo koy amal Kenya Ouganda ak Tanzanie atum 2027 Aïcha li mooy lu ci ne kay xëy fësal tey ci nii